rawatina wolof nee na borom butigu mbagg boo gis boo xaree xol ba magasin la ciy fekk yor yor yéen kaay naan man lan moo nekk tey jii ci xol ak dëndu nguurug Sénégal ndax nag dëgg-dëgg nguurug Sénégal bëgg na dem ci les élections ndax nag bu ñu nee dañoo joyanti Sénat jëlee Abdoulaye Sylla ca conseil constitutionnel yóbbu Sénat Cheikh Awa Balla Fall apériste Serigne Modou Awa Ndiaye candidat la woon bu APR ca commune bu Mboos te amul ndam Seydou Nourou Ba ñu daal di koy dàq laata mandaam di jeex dama ne nguur gi fi mu nii provoqué wul opposition bi naan man coow la ca pëndum teen ba gaaña amul baaga waaye nguurug Sénégal gii ndax rootul rootaaleel yenn ci opposition bi coow la mooy nag ndax bu ndaqee élection yi ñan nag ñoo cay ndaga ndagar wala daal di jaayu wi ñaaru teex-teex may ree ci suuf mbaadu nag du ña nga xam ne nag daal dinañuy mer ca suuf ci président Macky sal tabb gii mu tabb Amadou Ba wala it Ousmane Sonko mi nga xam ne jàpp nañ ko daal di faase turam ci liste électorale bi daal di sayel partem bii di Pastef wala it Karim Meïssa Wade mi nga xam ne téeméer ak fanweer ak juróom-ñett la yoral lebal état Sénégal te bu ko fayul du bokk wala it Barthélemy Dias mi nga xam ne jël nañu jaasi teg ci ndoddam te nguurug Sénégal mën a kupp boppam à tout moment Bougane Gueye Dany moom buñ ko dàqee du avantage am Idrissa Seck Khalifa Babacar Sall bu ñu ko dàqee du seen avantage ndax ñi ngi jege nag at wañu tabbal ñi nga xam ne mëntu ñoo nekk candidat Alioune mi woote dialogue en tout mbir mi taq na suuf tribune yéen kaay ne ma li gën a taq suuf kay mooy lii fukk ñaari membre yu Sénat yi nga xam ne tabb nañ leen Abdoulaye Sylla mi nga xam ne ña ngi ko jëlee ca conseil constitutionnel diri rongum rongum yi daal di andi ca Sénat dëj décret boo xam ne daanaka scandale dong moo ko lal ndax ci 2017 Cheikh Awa ball mi nga xam ne moom la ñu wutul Abdoulaye Sylla moom Cheikh Awa Balla moo jiite woon mouvement de soutien TGV ca Géejawaay te loolee sabab ga moo doon tabaat président Macky Sall 2019 Bougane Gueye Dany ci yéenekaay bi naan koon tabb gi jaarut yoon te Sall faaw nga wax ñu foo teg sa tab gii réew mi ko dijee naan koon en tout cas xel yaa ngi ciy tàmbalee teey l'indépendant yéenekaay naan kon ba ci njëkk mooy bu Bougane Gueye Dany le mandat laay yéene kaay naan kon moom jiital gëm sa bopp ma ngay tàmbalee nag wàññe benn par benn erreur yi nga xam ni président Macky Sall def na ko 24 heures yéene kaay naan kon géy kay ma nga naan kon président laa bëgg doon 2024 te bëgguma nag sama xel bi daal di jaxasoo jurisprudence nag at wii daal di am 2024 ak at sa topp moo tax nag spécialiste yu droit yii damaa bëgg yéen ngeen leeral sénégalais yii li président Macky Sall jëlub dogal fan la léefa yéene kaay naan kon gannaaw njaga si la ak Amadou Babou Pastef docteur Babacar Diop ma ngay naqarlu salfaañe gi bugaan géy dani naan leen leeralal leen nu seen salfaañe gii fu ngeen ko teg ma nga naan leen it farumaag ma sàmba farumaag ma demba waaye nag yootu gi may yootu réew mi tax na ma bëgg xam te yéen ñi seen xam-xam màcc ci wàllu yoon yéen a may leeral lii moom Abdoulaye Sylla 2018 dañ ko tabb ci conseil constitutionnel juróom benni at la war a def ci mandat mandat ba nag war a jeex 5 décembre 2024 moom Abdoulaye moomee mënta tekki ndombal tànkam ci conseil lu dul nag dafa jaar ci article 5 bi nga xam ne conseil constitutionnel teg na ko te article cinq boobee dafa ne kenn mënta gindi kenn ci conseil boobee lu dul sa mandat dafa jeex bu dee da nga bëgg démissionner moom conseil ba da cay wax daal di koy publier nag ci site ak journal officiel bi dara amu ca wala boo gisuñu ko te koo xam ni yaa nga woon ca conseil constitutionnel daal di bokk ca jiixi jaaxa ba amoon 2019 ci élection présidentielle ya amaat ci législative 2022 yi ndax kookee nag mën nañ ko tabb ca xolluk fa ñuy amalee élection ci réew mi beneen bi mooy Cheikh Awa Balla 2017 taxawaloon TGV ca Guédiawaye ne président Macky Sall la bëggal beneen mandat 2019 beneen cas ba moom moo di bu ambassadeur bii di Seydou Nourou Ba moom mi nga xam ne moo wutu woon Mamadou Mbodj bu forum civil tey jii nag ñu daal di koy faase te code électoral ba daal di leer te bu ca toppee la code ba wax moom ambassadeur ba mii kenn mënu koo faase nii coow li kay Bougane Gueye Dany fan la ñu teg tabb gu yees gii nga xam ne tabb nañ ko ñi nga xam ne ñoom la ñu teg ci boppu Sénat nan kon en tout cas maître Aïssata Tall Sall garde des sceaux Sénégal dox rek dana dalal ñamu war a dalal ñëpp waaye dox rek l'évidence yéene kaay naan man waxtu woowu gaa yaa ngay def kéemtalaay kàttan ba pare ne Amadou Ba loogu bu ñaar fukk ak ñeent junni ci parrain toftal ñaari téeméer juróom fukk ak ñeent dëgg moo wóor bu Pape Modou Fall jébbale na ko ca diwaanu Njaareem te sabab gi moom moo di def kéemtalaay kàttan fexe nag ba fal Amadou Ba mii ci boppuk réew mi turbine yéene kaay nan man ca diwaanu Kaolack gi Samba Tall bu jaspo seen daal dinay ñaabar ñaabari dem fekki Benno Bokk Yaakaar daal di dajale ñetti junni ci parrain yoo xam ne daal dina koy koy jébbal Amadou Ba ca Kaolack jàppale nañ ko fanweer ak juróom ci groupement féminin waaye tam ñoo xam ne ñi ngi bokk ci ay mouvement di ay junni junni Kaolack waa Samba daal di ànd ak mouvement sympathisant fas yéene dooleel Amadou Ba laas yéene kaay xamal ma ni Omar bun Xataab si laa njiital Dakar dem dikk woon day ma ngay tàmbalee nag wax moom Omar bun Xataab si laane ne su ma jugewul woon Dakar dem dikk faatu fa yàllaahu laay def Omar benn Xataab si laa la ma andi gàllankoor ci sama liggéey mi ngi fii ci Louga mystique nan daanaka joyanti naa Dakar dem dikk ay innovation am fa te man IGE musuma teg baaraamu tuuma terewul président Macky Sall dàq na ma te dàq li moom moo di yey nopp waaye tam mystique yoo xam ne maar day taali président Macky Sall nag ba mu koy xam njaw des naw xam bin Omar bun Xataab si laa njiital valeur ne fi mu toll ni nag ma ci benn combat politique maa ngi liggéey ngir yaatal samay base waaye daal nañu xam ne la ma génnee ci Dakar dem dikk mystique ko tàmbali yey nopp daal di koy jeexal le naan man général Diène xel bu baax a baax ci kaw Amadou Ba gannaaw ba ñuy ubbi permanence UDP bu Birima Mangara ca Mbàkke général Diène Gueye daal di leen ni Amadou Ba ci boppam ànd ak moom moo di ànd ak daanaka jafe-jafe yi sénégalais yi jànkonteel at yi ñu génn moom moo di soobaat sénégalais yi ci misère waaye tam ne leen njëg yi ngeen di yokk baax na ànd nañ ci ne leen facture courant yi nga xam ne yokku na lool bëgg nañ wax leen ni leen ndaw yi amul xëy ci réew mi mujj wax leen ni leen sunu doom yi faatu ci màngaan yi baax na wax leen ni ci réew mi noonu la général général leen lii am ci Mbàkke ñu ne moo ëpp nit ci réewum Sénégal day doy na firnde te boo seetee Mbàkke gi ñaar fukki junni ci baat Benno Bokk Yaakaar du ko fi am tay jii bu ñu waxee waxi gagné élection daal làmbaay mën na ñaaw l'enquête nan man la nar a ñaaw kay moom moo di njàng meeg njàngale mi nga xam ne ëllëg bës bu kat ci dul jàngale ci réewum senegal la moom Cheikh Omar Anne ma nga leen du xupp terewul jàngalekat yi ci boppam ne ñu talaata ji moom njàngale du am ci réewum Sénégal ndax nag lépp loo xam ne ak digee la nguurug matalewu ko lii tax jàngalekat yi xam ngi daal sëngéem nekk ci tumuranke fas yéene nag soobu ci grève goo xam ni maar day taali booba coow laa nga ca port otonom bu ndakaaru ak astab mi nga xam ne syndicat la ne du deltu ginnaaw ci xeex bi ñoom liggéeykatu port autonome bu ndakaaru yooyee soobu ci grève turbine yéene kaay naan maan Ibrahima Thiaw ma bokk ca syndicat ba naan def nañ pàcc bu njëkk ci grève bi te xamaloon nañ boobee directeur bi ni ko anam wi niy liggéeyee lañ bëgg mu dakk tey jii nag tàmbali waat nañ ko te boo moytul nag daañu gàllankoor port autonome bu ndakaaru libération yéene kaay naan maan maar day taali gi dëgg-dëgg mi ngi am ci sénégalais yi nga xam ne ñu ngi bàyyeekoo ci réew mi bëgg dem barça yéen kaay bi naan man bari na ci ñoom ñoo xam ne moom barzaq la ñu mujjee wala yi daal di teere Nouadhibou niki juróom-ñaari téeméeri sénégalais yi fanweer ak ñett ci ñoo xam ne faatu nañ seen néew génn na lopp juróom fukk ci néew mi ngi des ci ndox bi marine bi rek daal dinay dimbali benn gaal goo xam ne ñaari téeméer ñaar fukk ak benn ci ay màngaankat la defoon ña ngi ca fekk xale boo xam ne ma nga wasin ci gaal gi gàddu liir xam ne ñetti fan dong la am ak moom te budul woon ak marine bi day làmbaay ñaaw ndax dañoo pan ci digg